ils ont vu boo xoolee lettre bi ñu def. mais Aliou et l'autre chose. yéen leen membre permanent bu conseil de sécurité bu ONU. ñooñu la. Sénégal ak Afrique yëpp amu amuñu membre de sécurité oui loolu beneen débat la mais ce que je ñooy mën a intervenir ci kay pays yoo nga xam ne am na crise am na violation euh, des des libertés mais aussi restriction des libertés. non on ñoo ciy agir ñooy décider di. on n'est pas oui oui oui mais xam nga ONU dafa bëri ay bànqaas. Mm. ONU c'est vraiment un gros machin. Euh, bu yaatu. dafa am ay pàcc am na lu haut commissariat des nations unies boo xamante ni ci mbirum droit de l'homme fépp ci àdduna bi bépp pays membre de l'ONU bu amee yenn jéego yi nga xamante ni ay gouvernement def nañ ko yuy salfaañee démocratie droit de l'homme ay rey nit boomaatek yooyu am nañu les prérogatives de pouvoir faire li ñu def nii alerter oui voilà donc c'est ça donc loolu c'est une première chose mm. c'est pour parler des responsabilités xam nga yaa ngi wax mbirum euh, est-ce que dina non fi mu ne ni léegi le travail qu'on est de faire faire en sorte que régime bi jeexal na day dem. Hmm. waaye président Macky Sall cour pénale internationale moo koy xaar. déjà hmm. le le le F24. à hmm. travers euh, kuréel comité juridique bi nga xam ñoom metti ñoo nga fa annoncé nañ ko y dossier qui est en train d'être monté. Euh, ñun tey. pas plus tard que tey am naa benn discussion ak euh, cabinet William Bourdon boo xamante ni c'est l'un des meilleurs cabinets au monde sur les questions de cour pénale internationale mm-hmm. dossier wu Alpha Condé ñoom ñoo ko monté woon ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mm-hmm. et on va monter un dossier boo xamante ni c'est non seulement qui vise euh, le président de la République ak ñëpp ñi nga xamante ni laale nañu ci mbir yi ak yeneen mbir yi nga xamante ni am na ça ça ça c'est deuxième chose troisième gis nga même yenn responsable politique yi nga xamante ni am nañu yenn responsabilité yi ci li am mooy ministre nga euh, police nga bokk wala feneen nga bokk. Hmm. yaa a d'autres juridictions yi nga xamante ni dina am ay plainte euh, am na ñenn ñi nga xamante ni ñu ci bëri ci ñoom da ngay xool en Fra euh, au nu mu tuddati en Guinée dafa am régime Alpha Condé ñu ci bëri ñi nga xamante ni c'est des ministres et c'est des hauts par exemple defal nañ leen ay plaintes au niveau de la France aux États-Unis et un peu partout la plupart de seen lieu de vacances c'est la France ñenn ñi seeni doom France la ñu nekk seeni jabar ak yooyu donc il va y avoir des plaintes contre des pontes de cette république là un peu partout dans le monde de telle sorte que un moment que ce soit au Sénégal dinañu layoo waaye à l'étranger aussi mais pays est-ce que loolu du complexe ces pays gis ngeen ñu juger un président américain wala ñu juger un président français wala allemand à part des présidents africains wala philippines wala feneen ak feneen muy réew yoo xamante ne ñoo gën a néew kàttan ñi nga xam ne ñoo gën a bëri doole tey def ay massacre ay génocide ci yenn wax ci àdduna bi ba Russie bi ci loolu loolu loolu c'est un débat mais nous ce qui nous importe oui mais en tant que xam nga mooy lan mooy ki nga xamante ni Sénégal fii war nañ la juger dinañ la juger gis nga Hissène Habré hmm. je dis pas que forcément parce qu'il y a plein de juridictions CPI am na bu dee CPI la ils sont en train de monter les dossiers preuve nii ba ci torture Pape Abdoulaye Cissé ak hmm. yeneen Pape Abdoulaye Touré euh, ak ñeneen ak yeneen ñi ñuy boobu yooyu yëpp ñu ngi koy dajale hmm. pour le CPI mais y a pas que le CPI y a y a d'autres juridictions internationales yoo xamante dina la ñu fii lañ ko jugé ci Dakar alors que c'est un pour tout ce qu'il a fait au Tchad de l'Afrique pour les tortures pour yeneen ak yeneen mais gis ngeen est-ce que vous avez vu Pape Abdoulaye Touré hmm. li ñu ko def hmm. mais man j'ai vu cette vidéo j'ai eu froid au dos hmm. c'est-à-dire nee nañu ay nervi ñoo ko jàpp je ne sais pas mais dans la vidéo tu vois des gendarmes le torturer ñu naan damm leen ay tànkam mais loolu il a double fracture jàppoon ne solution. ci ñu am jàppoon ne aujourd'hui je discutais avec son avocat maître Moussa Sarr mu ne ma en 23 ans de barreau musuma am client bi nga xamante ni dañu ko torturer mm-hmm. c'est la première fois avec Pape Abdoulaye Touré double fracture bu genou genou fracture poignet ak bopp bi ah. dañ ko xar ah. ay dóor yu metti eh, eh, yow jàppaloo ne dañu war a am ay juridiction forte fii ci réew mi que ñu dem di am yaakaar ci les juridictions internationales pour régler nos problèmes le rêve de tout Sénégalais oui c'est-à-dire mooy ñu am justice bi war bu war a am taxawaay bi war et justement c'est ça le combat quotidien de nous tous mm-hmm. mooy justice bi nga xamante ni journalistes yi dañuy mën a liggéey xam nga def seen liggéey te kenn du leen xoxatal kenn du leen tëj kaso justice bi nga xamante ni nit ñi buñ buggee marché dañuy encadrer seen i marche mm-hmm. justice bi nga xamante ni day day autonome mu bañ a doon justice bu ñuy utiliser pour di dóor des opposants politiques di leen xañ ñu dem élection mu doon justice loolu la ça c'est c'est pour saako qu'on se bat mm-hmm. maintenant li ma la wax Fatou Abdou mooy le monde il est ce mooy dafa am li nga xamante ni mun nañ ko def Sénégal te dinañu ko def mais am na li nga xamante ni c'est à l'international aujourd'hui bëri na ñu bokk ci société civile ñu wax ne faaw ñu couper le cordon ombilical bi dox suñu diggante ñun ak yeneen dëkk yi nga xam ne moo moo ñu féete kaw bu fekkee ne un député français def na un post dañu koy tawi ñi fare ci opposition bi comme société civile parce que tout simplement décrier na doxalin bu président de la république bu Sénégal aujourd'hui encore ñi far ci opposition ak société bu ñuy jël kalaame di ko jox Nations Unies wala ñuy jël kalaame di ko jox CEDEAO ñooñu est-ce que pare nañu pour ëllëg ñu bañ a reprendre les mêmes bêtises yi nga xam ne aujourd'hui ñu ngi jiite ñu ngi koy def parce que nos gouvernants de Senghor à aujourd'hui à chaque fois dañuy wuti wàllu ci extérieur pour euh, trouver une solution man je suis man am na yi nga xamante man je suis très réaliste li ma lay wax mooy li war au niveau national ce qu'on peut obtenir de notre justice là bi nga xam ma xam ko ndey faatu xam ko ñëpp xam ko dinañ ko def waaye au niveau international aussi Sénégal dafa di réew bi nga xamante ni ak yeneen réew dañu jël ay engagement au niveau international bokk ci ay kuréel kuréel yooyu aussi liñ ci mën a am à des plaintes dañ koy def man loolu laa xam tout le def alors alors Aliou ñu ñu ñëwaat ci f euh, nekk ab plateforme bi nga xam ne li ci ay entités ñu koy de 174 mouvement euh, société civile ñu bëggoon xam ndax boobu boobule kuréel di plateforme euh, F24 ndax am na ay charte parce que pëcc xool la nu fa gën euh, gën a gis da ngay gis li ngeen di xeex buy non au troisième mandat am na ñu nga xamante ne ni ñu ngi biir F24 xëy na bokkuñu ci xeex boobu wala yéen boo leen toogee ne demoo leen dialogue am na ñu bokk ci yéen ay leader politique ñaa nga ca dialogue ba alors loolu naka ngeen koy gere yéen ak yeneen ci ay leader déjà il faut dire que F24. Mhm. Euh, suñu charte quatre points moom moo ñu boole. Mhm. non à la troisième candidature de Macky Sall. deuxième bi mooy euh, non à l'élimination à l'utilisation d'artifices juridico politique mhm. ay porox ndol di ko utiliser pour di écarté ay candidats euh, troisième ponk bi mooy pour la libération des détenus politiques yi nga xamante ni ñu ngi ci kaso yi mhm. quatrième bi mooy euh, organisation ay élections yi nga xamante ni day mhm. inclusive mu transparente ñu jëm ci loolu donc yooyu moo ñu tënk donc amoo leen problème ci ñu dem ci dialogue ba maintenant leneen li mooy leneen li mooy le F24 en tant que entité officiellement joxe nañ suñ position wax ni mhm. dialogue bi intéressé wu na intéressé wu ñu maintenant

réew mi de fii fii fii kenn du fi décidé appliqué li nga xamante ni méngoowut ak bëgg-bëggu askan bi képp ku ko fi nas wala nga bëgg ko teg. Euh, tu auras le F24 en face loolu moom c'est clair net et précis donc loolu la rek ñu ngi toog di xaar Mm-hmm. voilà et modification F euh, modification article L 30 L 57 bi nga xam ne da ngeen ko bëgg est-ce que bokk na ak doxalin bu Y'en a marre déjà da ngeen mës a la bonne gouvernance ki nga xam ne dañu ko dénk mu yor ñu dem ñu àtte ko ñu ne dafa luubal xaalisu askan wi est-ce que kooku dañu war a dem effacer loolu dindi ko pour tout simplement lui permettre d'être candidat bu dee dafa am nit Euh, bu dee dafa am gis nga que nit dinañ mën a dinañ ko déchoir de ses droits civiques ak politiques ou pas mm-hmm. c'est la justice moom moo ko war a prononcé mm-hmm. mais Macky Sall moom moo utilisé à travers l'Assemblée nationale mu indi ay njuuj njaaj yi nga xamante ni c'est ce qui lui a permis d'écarter Karim Wade écarter euh, Khalifa Sall et euh, aujourd'hui on a vu avec Ousmane Sonko tout ce qui se passe c'est ça c'est l'esprit c'est-à-dire un président bi nga xam day utiliser suñuy institution di dugal ay loi di ci dugal ay porox ndoll qui lui permettent de le faire c'est ça que les sénégalais refusent loolu du yaanaamaar rek da ngay dem ci kër yi dem un peu partout amul benn sénégalais bu ci d'accord si on revient en arrière sur le cas de Karim Wade par exemple beaucoup de sénégalais dañoo amoon aspiration wu reddition des comptes ñu ci bëri sax ñu gëmm ci inversion charge de la preuve ci ni ñu ko toppee ak yooyu ñu ci bëri alors dañu violé woon sax ay droits ñu ci bëri nag ci ay sénégalais ñu waxoon ko ne warul demee nii. mais bu ñu gisee ils étaient combien vingt cinq ñii nangu transhumé ñu transhumé transhumé tey kan moo la mën a ne ni lii la ñu recouvrer sur la traque des biens supposés mal acquis amul ça a été après la traque à Karim Wade amul benn décision de justice bi nga xamante ni nee na ni il peut pas être candidat que il a perdu ses droits civiques et politiques amul mm-hmm. donc Fatou Abdoul loolu la mm-hmm. alors la la question également de de la troisième candidature. Euh, yan outils ngeen di teg pour xeex ko parce que def ngeen fi gaa une manifestation bu on lool manifestation yi mujj yi dañ leen ko bañal mais ci lan ngeen di sukkandiku aujourd'hui euh, pour dire non à cette troisième candidature bu fekkee ne jot na moom mu samp ndëndam ne dafay wax ne dafay présenté wu. di ngeen gis acte par acte incha allah que le F24 va poser il y a les mobilisations am na travail bu am solo bi nga xamante ni ñu ngi ko ciy def un peu am na benn pétition bi nga xamante xamante ni dinañ commencé di dem ci marché yi bi nga xamante ni bépp sénégalais da koy signé ne ni man nanguwuma mbirum troisième candidature bi parce que ñu ngi koy wax ci biir kër yi il faut que ñu dem fépp fekk leen fa de façon populaire ñu koy signé am na yeneen ak yeneen ak yeneen am na kër diine yi visite yi ñuy def un peu partout demoon nañ fi euh, Touba ba xalif général de Mourides à l'époque c'était Diamaguène euh, troisième mandat mais F24 dina ko dem seeti euh, les représentants diplomatiques yi fi nekk à l'étranger diaspora bi aussi mu ngi mobiliser au départ ça été timide parce que dañu doon artu di wax ci njëkk comme ni mu ko waxee mais bu ñu demee ba après ñu commencé di multiplier ay meeting d'investiture du président Macky Sall di wax ay mbirum deuxième quinquennat